dérange pas. Thierno d'accord d'accord ne Abdourahmane a été plus généreux que lui. waaw ouais, mais bon loolu calculu Abdourahmane te man bi mu waxee xam naa ne loolu c'est le calcul politicien quoi loolu loolu laa jàpp loolu la Abdourahmane def c'est-à-dire euh, bàyyi ko mu jiitu et en ni ñu koy waxatee sax et en en espérant que ni voilà 2024. bon parce que aussi tamit lui il a le profil quand même du présidentiable quoi. léegi man et Thierno Alassane ne l'a pas. non dama ne lui aussi le aussi là c'est important kon ça veut dire que aussi il l'a <laughs> may mu ne yaa ngi ruubee de. dama ko mu leer rek. non il l'a kay ah mais il a été ministre. et pas n'importe quel ministère ah. il n'a pas été euh, il n'a pas été ministre dans un euh, petit département d'autant plus qu'il n'y a pas de petit département mais.